waa ji rey Aziz Dabala ak kii di Waly jàpp nañ ko fële sa Touba brigade spéciale de Touba bu quartier Jannatu Maxwa moo ko teg loxo ci guddi màggal bi lépp ngi commencé ba waa gendarmerie jotee information bu leen wax ne kii def ñaawteef bi ci kaw Aziz Dabala ak Waly moo ngi si màggal bi bañ jotee yii la information si lañ def descente daal di koy jàpp ñu daal di koy yóbbu ci brigade spéciale pour déglu ko Mamadou Lamine Diaw di Modou Lo ci la nangu ne moom moo def ñaawteef yi Mamadou Lamine Diaw nag moom maçon la de profession moo ngi dëkkee fële sa Pikine ginnaaw raay ñëwaat mbir mi demee teg si lan moo waral mu jël bakkenu kii di Aziz Dabala ak Waly Mamadou lamin Diaw alias Modou xamna bu baax ki di Aziz Dabala parce que da ko doon fréquenté loolu moo mu dem daal di koy setti si appartement bi ngir sàmmante mom coloré teg pour laaj ko xaalis pour magal bi sen web mo ñu jox yile information mu ñuy xamal ki de Modlo da ko doon laaj xaalis waaye di Aziz Dabala ba mu bañé Modlo dafa génné paka daal di koy menacé si yile menace si la jappanté daal di am Modlo daal di jël paka daal di ray ki di Aziz ba mu ko rayé ba nopi dafa jël téléphone Aziz bi ba mu démé bay génn ci la xelam dem ci walé mu ci bir kër gi ba muy dugg walé gis nako pour jema masquer ñaaw ñaawtee fi mu ne xaaral mu éliminer kii di Wally Wally nag da ko fekkoon si biir néeg bi mu toog si la koy daal di jamate en même temps mu jëlaale téléphone bi génn dem nañu delluwaat tuuti si mbir mi ginnaaw ba mu reyee kii di Aziz Dabala rey kii di Wally dafa jël seen ñaari téléphone génn ak moom dem waaye weddi na tuuma bi bii ne dafa vidé compte Wave kii di Aziz Dabala Mamadou Lamine jaaw di Modou Lo né en 1999 ginnaaw ba mu defee ñaawteef boobu noonu dafa gis benn xaritam daal di koy wax lépp nu mu demee pour mu gardeel ko ko ñaari xarit yi nag ci liñ jël yoonu Touba bi pour dem magali jamono ji nag kii di Mamadou Lamine Diaw moom moo ngi gendarmerie Touba moo ngi toog di xaar autorité judiciaire yi pour ñu transférer ko Ndakaaru mbir mi mu nekk loo xamante ne dafa diis nga jël faat ay bakkan jàpp ne nga see génn noonu loolu dafay yomb trop enquête bi gëm naa dafay continuer di woy pour gën a leeral mbir ay zone d'ombre yoo xamante ne na si mais loolu gëm naa ne enquêteurs yi dinañ def seen kéemtalaay kàttan pour mu leer parce que xamee nañ leen seen professionnalisme résultat n'en demeure pas que ñu ñu bëri def lii dinañ ko jàpp nag il est présumé innocent même su fekkee ne il faut ñu am ay éléments concordants mbir mi ba mu xewee ñu bëri génne nañ seen théorie dem na sax ba kii di Adamo accusé na kii di Nabou Leye mu nekk nag loo xamante ne dafa grave mbir mi nag mu ngi nii ñu ngi leen laaj seen xalaat à travers les commentaires mu ngeen abonné wu ngeen partagé vidéo bi su fekkee ne apprécié ngeen sur ce ñu ngi waxante ba beneen sur Dakar